jëlee nañ ci abi hurayrata yàlla na ko yàlla gërëm niki yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama waxoon na bilaal ni ko yow bilaal dama bëggoon nga wax ma ana jan jëf nga gën a yaakaar jooy jëf ci lislaam ndax man dama dégg sa teppi teppi dal ca aljanna bilaal ni ko man de jëfuma jëf ju ma gën a yaakaar ci ni saa yu ma njàppoo am njàpp moo xam muy guddi mbaa muy bëccëg njàpp loolee danaa ca julli ci ay ràkka lu yàlla dogal ma man ko caa julli xaddis bi buxaari yook muslim solo nañ ko